jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen ngi koy ànd ak ñun leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte lekk mooy sunu yitte CCB du leen ni kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne ci ñi ngi jaajëfal ñi nga xamante ni dañuy ànd ak ñun si commentaire yi ñu ngi kontaan si ñoom bu baax a baax ak lépp loo xamante ni commentaire nañ ko jërë ngeen jëf waaye bu leen fàtte mukk baaraam bi nga xamante ni day taxaw ñi gërëm bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñii nga xamante ñooy aar daara waaye di ndokkeel bu baax suñu mbokki bopp ya nekk bitim réew góor ña ak jigéen ña yal na yàlla defal leen ndam ak sutura ñu ngi siyaar yu baax suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk di takk ay der maanaam di nekk si talibeeg frontière yeeg fépp fu ñu mën a nekk rek pour askan wi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di ko teg si loxo kilifa gi nga xamante ni ma nga see sa feder bu ñu ngi koy ndokkeel euh, di ndokkeel nag ñi nga xamante ni ay handicapé lañ ñoom it ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax chauffeur yeeg marché yi ñëpp daal ñu ngi leen di siyaare émission bu mag bi nag di seen xalaat ni leen ko waxee woon rek euh, danañ ñëw wax suñu xalaat danañ jox askan wi kàddu waaye dinañ woyi borom xam-xam Euh, mu ñëw wax ci loo xamante ni ñun amuñu sa xam-xam waaye dinañ ko diglu moom mu biral xam-xamam ànd ko ak yéen ñu ànd ak Cheikh Maam xaadim si téereb euh, docteur Ahmed Lo bii mu ni moo ko bind ndekete woote bindu si dara dañ koo bind dajale ko jox ko ni ko fësalal mu fësal ni moo ko bind loolu yi la Cheikh Maam Khadim wax dana si indi ay dalil yu leer nañ fii si CCB incha allahu rabbi man ngeen ko am ajjuma bu jot waaye man mi da ngeen ma continuer di am da ngeen di am askan wi incha allahu rabbi fii si lépp mën a am mooy bitigu solution ma nga jàkkaarloog wal fajjiri soxi bu jóob dana ñëw ngeen diglu publicité bu baax a baax a baax te xam ne daal saafara yi jafe-jafe askan wi léegi moo ko fi tax a nekk moom mii di bitigu solution soxi bu jóob nañu dem te ñëw incha allah ak solution mbokk jaaxle jeex na solution juddu na ci diggante réew yi ma leen di bëgg a tuddal seen buti solution gën na leen a jege yéen ñi nekk ci biti réew waaw waaw déglul ma li ma la yéen ñi nga xam ni yéenay xaar boutique solution ci biti réew ci seen ñetti garab yi ngeen taamu fii ci solution hémorroïde bu tëw a wér ndoxum siti mu tëw a ak góor gu néew kàttan ci wàllu sëy bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Daxla bu dee ca Dubaï Daïra ngeen mën faa fekk produit yi boutique solution di jaay di nga mën a jot soxna wootee appel normal boo ko jutul bàyyil ko message whatsapp bépp produit bu ñuy jaay fii ci boutique solution ci Sénégal man ngeen koo am ci réew yi ma leen tuddal bu dee ca Italie Milan bu dee ca Maroc Dakhla bu dee ca Dubai Daira da ngeen fa fekk produit boutique solution Alaaji Sanjoogu Mbeng soaay bu Jóob mi ñëw ngir régler situation yi yéen ñi doon jaaxle ci yónnee fii ci Sénégal yéen ñi doon jaaxle ci diggante GP yi mbokk yi mbaa fàttewu leen garab yi ñuy jaay soo ci bëggee am yu wóor yu leer naññ njàmbat hémorroïde bu mënta wér jeex na ndoxum siti mu mënta wér jeex na góor guy gaaw a yegg ci kaw lal jeex na ak seen boutique solution bu leen ko fàtte nag boutique bi xoojul jàmbul listaxaarul seetul su ngeen bëggee digg digg daal fii rek ngeen di wéree. waaw kay jërëjëf son bu Diop jërë ngeen jëf bitigu solution euh, Cheikh maa ngi lay nuyu. ah bu baax yaa ngi jàmm. maa ngi ci jàmm baax a baax. yaa ngi en direct bu mag bi CCB. waaw bisimilah ñu ngi ziar ñëpp. acca ñu fa yéene waxtaan ak yow tey jii si téere bi nga xamante ni docteur Ahmed Lo nee na moo ko bind ndekete woote bind ko ñan ñoo ko bind. jox ko ko. Mhm. waaw Serif ñu ngi lay ñu ngi di la ziar di nuyu ñëpp di kontaan bu baax ci mbooleem ñi nga xam ni ñooy teewlu GCB. ci kaw gàttal rek ñu dugg ci mbir mi ak laaj bi di ñaanal soño ba di la ñaanal di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ca jiital. Mhm. téere bi laaj bi kay ngi noonu fi mu toll nii man kay maa ngi lay diglu rek. téere bi téere la boo xam ni dafa bari lool talbisaat talbisaat nag buñ ko waxee. mooy lënt lënt téere bi li ci ne ciy téere ñu boole ko ñi ko bind néew na ñun ci tëjul kaso bokk na ca ibnu taymiya danaa la indil nag téere yi nga xam ni boole nañ ko euh, doon ci xeex waa tasawuf wëlbati gin wëlbati turu téere bi def ko tax diisul asxaas fi fikrati suufi bu Cheikh Ahmadou Lo ñu ni ab teesam la loola ci biir wax ji dana am lu ko dindi kon dañuy tàmbali dugg ci biir taqdiisul asxaas mm-hmm. téere la boo xam ne ñi ko liggéey ñoo ko njëkkoon a duppee juhuudul ulamaa salaf fi raddi ala suufi yi mooy premier turu téere bi téere bi moom ma ngi def teesam quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze téere bi li ko manqué junniy page matul ñett junniy page la def teesam kooku xel sax war na cee xalaat téere bi làmboo na benn téere boo xam ni mu ngi tudd kasfu an xaqiqati suufiyati boo xam ni ibnu taymiya moo ko liggéey lu ci ëpp ay waxam ñoo ci nekk téere boobu li mu yàq suufiyanke yi kenn du ko yàq suufiyanke yi bokk na ci biir téere taxdiis li may wax ku ko weddi na dem xool téere bii ma ko wax mu xool tax taxdis ci page cinq cent bi ba cinq cent cinquante huit bi rek ñoo fa nekk ak li ci ginnaawam téere bi sax asan mhm, mhm. moom la ñuy wax ni allazi yactabaru min aczami alkutubi altakfiriyati allati katabaha alsalfiya Hmm. mooy téere bi gën a rëy bi nga xam ni nekk na ci biir tax taxdiis hmm. ay waxam rek lañ fa dajale yi nga xam ni ñi dàq yéefar yoo tasawuf wax ji gën a bon ci ñi nu yéefarloo tasawuf ci biir téere boobu la ne. waaw ñooñu loolu Ahmed Lo moo ko bind wala bind ko. téere bi déedéet lii ma lay wax. magee na Ahmed Lo ñetti téeméeri at. téere bii mu ni moo ko bind. téere bii mu ni moo ko bind. ay waxam naa la indil lan moo ci ay waxam. Hmm, bisimilah. Ahmad Lo dafa def li ñuy wax taxliix analyse. Hmm. la def ci téere bi. indi lenn ci teesam def analyse moo tax ci tàmbali téere bi da ngay dégg ne Ahmad Lo bi muy tontu dafa wax ni tem bii ngeen indi de am naa ci ay xalaat ndax man ci biir sufiyanke yi. falaa juddoo falaa yaroo mën naa cee indi sama xalaat Assane ndax téere boo bind hmm. da ci waxe nii hmm. Hmm? Ah, ah, ah, mu ngi ci biir téere bi léegi beneen bi kii ñuy wax Mahmoud Abdouraouf Alxaasim saaxibul kitaab ay waxam bokk na ca ca ëpp te ku ci ëpp lu mu sarx waxu ibnu tarbiya mm-hmm. léegi boo gisee may dalal wax ji damay bëgg comme ñoom dañoo mën a weddi ma koy benn benn. pour ñu mën koo dégg. waaw beneen bi nañu dem ci téere bii ma lay wax. Mm. mu ngi ci biir téere bi Ahmad Lo wax yi nu boole mool laa lay wax mu ngi tudd taxdiisul wilaayati wal awliyaa téere boobu. Hmm. boo demee ca tàmbali ba la ñuy diinget mooy tanzimul ali wa ithamu suufiyati bi tashayu al asasi aw bil xubur hmm. aw bi ziyaarati al xubur bu ne wa sirku hmm. na natiijatun taazimu aleykum mu ni ñii nag mbir bokk na ci li may bëgg a dinget mooy ahli bayti nabi dañ leen di ziyaare maanaam dañoo gëm ni yonent bi ginnaaw Karbala dese na fi benn sët mu ni loolu da ko inkaar ku ko gëm dañ lay tafkiir yéefar nga dégg nga mu ni ñoo wala ñuy ziyaare xabru boo xam ni wax nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab sëtam da ca nekk loolu dañuy fiir hmm. ci téere bi looloo ko tax a jóg mu ni nag ñun suñu mbir benn résultat la am hmm. suñu résultat mooy bokkaale yàlla hmm. ndax yaa ngi dégg bu baax beneen bi mu ngi koy tuddee circul azam mu ngi ci biir téere bi. lii lépp ngay wax si biir téere bi la ne. mu ngi ci biir téere bi. ok. waaw mu ngi ci biir téere bi te nee na moo ko bind te bindu ko. téere bind ko yi ma wax yëpp. Mhm. li nga wax lépp bind si dara. Euh, may naa may naa may naa ku mu neex. may naa la sax foofu plateau. Mhm. nga woo ñoom kenn par kenn. Mhm. ñu ñëw ñu ñu ñu génne ñu xool. Ah. dégg beneen bi mu ngi tudd tahamiyatun tanzih hmm. al mutlaq boobu tamit day takfiir mboolem sufiyanke ibnu taymiya sax wax na ni biha ibnu taymiyati kasiran wa ala asaasiha kufrun min masaayiqi suufiyati al mutaaqirin wa min amsalihi dalika qawlu saaxibu alkitab alkasfu an alxaqiqati suufiyati al awaliya moom ibnu taymiya waaw mu ni hmm. ñii ñuy wax suufiya yi ñoog yéefar ñooy am ñu bari ci seen sëriñ yi hmm. jëfinu yéefar la ñuy def rawatina sërif yi nga xam ni sëriñ yi nga xam ne al mutaaxirin lan mooy ñu mujj loolu Ibnu Taymiya moo ko bind. moo ko wax moo ko bind bind te mu ci téere Ahmad Lo bi. dégg mm-hmm. loolu mu ngi tudd moom laa la al kasfu an mm-hmm. léegi nag ñoom problème bi nga xam ni Assane moo indi problème mu coow li Sénégal. Mm-hmm. mooy jëmmi téere bi moom ci boppam. moom moom moom jëmmi téere tax diis yii ma moom la boole. Hmm. dafa am ci biir benn masala boo xam ne. Hmm. moom la ñuy wax waxdatul wujud. Hmm. léegi nag ñoom dañ koo tuddee waxdatul wujud hinda suufiya min awwal ila axir lépp lañ indi. tekki ñu masala boobu xam nga lan mooy wahdatul wujud. tekk tekkil ñu ko ñu xam ko bala ngaa. waaw dama koo bëgg a tekki après. Hmm. waaye dama koo bëgg indi. fi ko Ibnu Taymiya indi. Hmm. ak fi ko Ahmad Lo indi. Hmm. ñu tollale ko. ba pare naa moo ko bindee. waa am na beneen téere bu ci nekk. bu tudd kullukum kufrun ñoom ñëpp ay yéefar lan la téere bi tudd. téere bii nag Assane. Mhm. kenn bindu ko. Mhm. nii lañ ko waxee ñoom. mu ngi ci biir tax diis. Mhm. li ma wax nañ ko vérifier ndax léegi euh, Google boo fa demee fekk fa yëpp. téere bi kitaabu salafiyati wa takfiri madaarisu suufiyati hada alkitaab huwa kulluhum kufrun hada ismul mashhur lii mooy temu téere bi mooy téere salafis yi la ñuy weddi mboolem njàngale mu suuf yi def moog njàngalem juif ñoo yam Ahmad Lo mi am fit moo ko signé ni moo ko bind waaye te lii magee na ko ay ati at Ibnu Taymiya ci ñaareelu xar xarnu la waxaat Muhammad ibnu Abdul Wahhab dix-huitième xarnu la kon soree nañu. mais Ahmed bis bu ñuy ànd ak moom doyloo ko bis bu ñu demee ba xam ne ndekete bindu téere bi baa duñ ko fa bàyyi. waaw loolu la GCB di bëgg a leeral. Hmm, xamal leen kii naan leen moo bindu téere bi du si leen. da ko siiwal waaw du ci leen de. ah dana war de. waaw hmm. ku lukum boobu. Hmm. da dem ci bunt bi ñun la. huwa takfiirun lil madaaris yaa ngi dégg nag takfiir. xam naa mooy mooy loo nit. waaw pour nga xam ko. Mm-hmm, mm-hmm. da cee yëpp taksiir la. Mm-hmm. li madaaris suufiyati bil wa ulamaiha wa muridiha wa muhibbiha wa manasiriha wa madafiiha na anha mu ni falam yaslim falam biha illa salafiyatu déggal wax yu doy waar yooyu. Hmm. mu ni téere bii nag. Hmm. ñii nga xam ni njàngaleem sufiyanke yan yor. Hmm. seeni sëriñ yéefar lañ seeni borom xam-xam yéefar lañ seeni murit yërëfër lañ ku leen di dimbali yéefar nga ku leen sopp yéefar nga ku leen di jañal lor yéefar nga te doo mucc. nee na kenn rekk moo mën a mucc ci tawxiid ci lislaam ci njàngale mu leer illa salafiyat ku dul ñoom salafis yi téere bii mu ëpp ci waxi sax Ahmad Lo dégg nga ginnaaw ba nag lañ ca boolewaat bu ñuy wax ak tasawufu saudiya Abdul Aziz ibnu mm-hmm. moo ko móollu dimbali gaa yi ba ñu def ko ngir dàq waa tasawuf ci arabi saoudia hmm. ña fay dund tasawuf sufiyankee hmm. kenn mënatu fa am jàkka hmm. déedéet amul benn sufiyanka bu mën a am jàkka màkka téere bi ndax takfiir gi ñu fi takfiir bari na nag Assane buñ ko toppee te temps bi. waaw bariwul téere yi mën naa koo tudd tamit bu mu gën a bari. dëgg la ak it eh, njariñ ak njariñuy téere bi dinañ si dikk incha allahu rabbi. xam naa foofu lay. léegi ñu jël. bu dee waxtu wi def na ñu jël jëmmi téere bi li Ahmad loo wax. waaw jëmmi téere bi dinañ ko toj ak lan mooy salafis. ak lan mooy. waaw waxaabiyoona ak lan mooy eh, ibaadu. incha allah mhm. rabbi xam naa àjjuma incha allah rabbi daañu si dikk si loolu mais ñi nga xam mhm. ni ñooy eh, ñi daan nee nañu ñi daan saaga sunu mag ñi mhm. eh, danga daan gis ku demee ni soxna bu jóob jàkkaarloo ak ñoom maanaam di jàkkaarloog ñoom di jàkkaarloog ñoom bu ko defee ñun ñun ñii ñu naan soxna bu jóob mii dañuy fontoo fii kenn saagawu fi sunu mag ñi moom mooy dem bi ko fésal bu ko fa bàyyi woon fa mu nekk ñun suñu yoon du si nekk kon soxna bu jóob mi mooy mooy fésal saagay sunu mag ñi daal di dal ci kaw soxna bu Mhm. léegi ñu dem ba si biir soin bu waa di leen di bàyyi toog jàpp moo sa njàmburam wala mooy doxee neneen seen digganteem ak ñoom après ñu ne waa soin bi mhm. moom lan moo tax xeexatut ak ñoom euh, mhm. ba tax ñun ñu génn di def ay déclaration pour bëgg a dem xeexi toj kër nangam nangam euh, loolu lan moo koy waral euh, dese naa dégg laaj bi waaye mën comme ça soxna bu bu njëkk soxna boog ibaadu ni ma ko mën a waxee. waaw waaw man mii daan naa ci wax ak moom boo mosaan di chiffre compte bi da nga daan gis soxna bu day dal ci seen kaw di leen corriger. naan leen mhm. dem leen ngeen jàngi xamu leen dara après di indi ay mhm. bu ñu waxee dara rek mu indi ko corriger kooku mhm. féetale ko boor bu ko defee kooku daal di pare léegi ñun murit yi ak ñun ñi sopp suñu mag ñoo naan son yi bu jóob mi daal sa waay ñii defuñu dara ñee fañ nekk lañ nekk fañ nekk bu ñu leen fa bàyyi woon ñun duñ ko yëg léegi nag dem nañ ba son bu jóob nam daan doxee mu sensé doxalin si digganteem ak ñoom après ñoom affaire bi di wal daal mel na géej bàgg yi di ñëw ba dugg seen i biir kër ñu doog a jóg taxaw mhm. naan euh, lu ko indi fii te ba muy ba muy doog a door la taxawante xeex ak ñoom. waaw dañoo jàppoon ni. Mm. kiy siwal mbir di ko yaatal. Mm. fu mbir mi àgg. Mm. moom la. fi àdduna toll nag. loo siwawul loo siwalul. ñu bett la ca. sooy bu sax bu toogee ni teg. technologie fi mu toll. Hmm. lu ni tuuti rek. Hmm. àdduna yëpp dégg ko. Hmm. ñun nag ñun ñun ñi nga xam ni ñooy almuridiya euh, dañoo baax lool. lu bari dañuy bàyyi noonu. tege ni suñ doolee wala sunu mbaax. toll na foo xam ni. kenn duñu affronté. li nga wax it nit ñi am nañ ci seetlu. ni mu leen daan songee. defatu ko. daa xàmmeetul waaw ak déet. looloo tax. Ah, daa xàmmeetul waaw ak déet moo tax mu tey. waaw xàmmeetul waaw ak moo dëgg la. ndax waaw xàmmeetul ku xàmmeetul waaw ak déet. Mm-hmm. da nga naan tekk. Mm-hmm. yabal yàgg. xam naa àjjuma dinañ dugg moom boo ko yabalee dëkk dina am. àjjuma dinañ dugg si loolu incha allah bi ak leeral beneen bi dañuy gis ni. ñoom ñoo ñooñu di mm-hmm. waxaabi yoona yi wala wa uh, salafis yi wala wa ngi sa topp buñ gisee kenn ku xaw a bokk si ñoom. bu amee solo dañ ko jël taf ko si seen wet. jege ko di waxtaan ak moom pour bañ mu raw leen. mais ñun ñi si des ñun ñi xaay dañoo sopp suñu mag ñi bu gisee kenn kuy góorgóorlu dañ koy corriger ak di ko diingat ak di ko soofantal ba daanaka day découragé sax ba tax muy génn dem si keneen léegi léegi turu bi yëpp turu bi yëpp foofu la amee ah. turu bi yëpp waaw foofu la amee maam bu ñu gisee kuy góor góorgóorlu duñ ko encouragé duñ ko jegee duñ waxtaan ak moom dañ koy soofantal fan yi sax ñoo ngi encouragé kuy góor góorgóorlu wala ñu dal ci kawam pexe dafa am hmm. waaye bu njëkk booy góor góorlu ci lislaam wala diine. Hmm. ibaadu yooyu lañ lañ njëkk a wax. Hmm. te tey fii mbir mi toll. Hmm. ñi am xam-xam. am diine di gës ci lislaam ñoom rek ñoo mën a affronter gars yi. parce que ñi si def tey moom laay faral di wax ma ni ma ni dañoo war a sunu xale yi. ak sunu mag ñi jàngul. xaal bi may dégg ñu koy waxee ci internet bi. ñu bàyyi ko. ñu bàyyi ko dëgg la. ñu bàyyi borom xam-xam yi. tontu leen dem. Mm. waaye ñun ñii di ci wax. Mm. ak ñu dul ñun. Mm. daanañu góorgóorlu. di lii xewagul. waaye lu ne la ñuy yàq. te ñi ñu koy yàq. ñoo bokk ak ñoom mbir mi. ñoo bokk ak ñoom mbir mi. léegi si bi tarixa tijaan ak. tarixa murit xaadar ak. ñëpp ngi ànd doon benn. ndax fi ne nii. benn noon rek lañu gis. waaye noonu boobu bu ñu ko reyee. bu ñu paree. ma taxaw wax ci suñ tubaa maxaamam. Hmm. kee da koy weddi. dëgg la de kee taxaw wax maxaama seex. Hmm. ma weddi ko. Hmm. léegi ñun suñu biir ñu nekkaat fa. di xëccoo. ba beneen noonu ñëw duggaat. dëgg la seex bi loolu incha allahu rabi da ngeen si ñëwaat si ay. dégg ay ay ay ah. léegi Assane soo ma soo ma mayoon. dafa am laaj ma la war a laaj si gaa yooyu. waaw boo ma mayoon tuuti rek. keroog dama seetaan deux ngeen baal ma. amul solo. tunkara lépp ñëpp la. waaw Omar Diallo. Mm-hmm. di taalibe Ahmed Lo. Mm-hmm. am lu mu wax ak moom. Mm-hmm. ci waxdatul wujud googu. soo ma nag ma leeral waxdatul wujud tuuti rek ci Ahmed Lo fi mu koy indi. waa kii ko bu àjjuma nga àggale ko. Hmm? kiyel bu àjjuma incha allah bi nga àggale ko. waaw léegi léegi moom dafa dafa convaincre Tunkara. Ah. ndax dafa wax ne Ahmed Lo waxul ci téere bi. Euh, ñun tasawuf dañuy séyeeg suñuy doom di séyeeg suñuy yaay di séyeeg yooyu. yi nga xam dañoo araam. nee na waxu ko si téere bi. mu ne wax ko téere bi léegi mu indi waxu benn boroom xam-xam. Hmm. bu tudd Talim Saani. Hmm. mu ni Talim Saani dañ ko musa laas ci euh, fusuus bi Ibnu Arabi. Hmm. muy fusuusul xekam téere boobu mu ni Talim yi sax moom Ahmad Lo. sarx na téere boobu maanaam yaatal na ko. Hmm. sarx boobu na ma ko indi Ahmad loo indil. Hmm. amul. amul mu ni Taram Sani moo fa wax ni. Hmm. dañ koo laaj ni ko seen fusuus boobu de li ngeen ci wax ci wax wax datul wujud lépp yàlla la mu lépp yàlla la. asan yàlla la soñ bu yàlla la man yàlla la lépp yàlla la ndax lépp ci yàlla la boobu. mu ni Taram wax ni. téere boobu de li ñu ci wax mooy dëgg alxuraan nag moom lépp sirk la lépp bokkaale yàlla la. Hmm. mu ni te kooku sufiyanke bu mag la. bu mag la. mu ni mu ni looloo waral. Hmm. ñoom ñi nga xam ne dañoo xam yàlla. Hmm. mën nañoo séyeeg seeni doom séyeeg seeni yaay séyeeg ñëpp ndax lépp yàlla la. lépp yàlla la. nee na ñoom ñu laaj ko ni ko. waaw bu dee lépp yàlla la. lu tax sër. araam ci frère am lu tax ndey doom ja araam ko lu waral loolu bu doonoon lépp yàlla la du am. mu ni loolu pour mahjuub yi la. mahjuub yi mooy. Ah. xam naa fii nga toll sax gars yi duñ ma ko baal waaye maa ngi leen di jéglu bu baax a baax nañ ko kale. ajjuma ah. incha allahu rabbi <laughs> ñu àggale ko si ay leeral léegi baat bi nga xam ne moom laay tëjee. ndax ndax ndax maam si si kii si si diine dafa am ñoo xam ne dañuy tere maam sol tubéy ju ndaw comme saa bu dee góor a day tëmbal bu dee jigéen a day tëmbal ndax dafa am si diine ñuy aaye sol tubéy ju ndaw ñu tëjee ko ndax damay gis daal fan yi yëpp gars yi naan am na ñoo xamante ni duñ sol tubéy ju ndaw benn tubéy la ñuy sol lu tax ndax loolu dëgg la wala du dëgg sol yi solu gi lislaam di see wax loolu loolu xanaa ñoom la kon déet damay laaj léegi man xamuma man damaa xamut. waaw sama njàng àggagul foofu kon. àggagul si doo maam. benn tubéy la sol. fu ko tere sama njàng àggagu fa. Ah. waaw àggagu fa de. kon daal nit da war a sol ñaari tubéy ba ñett. benn baax na ñaar baax na ñett baax na foofu sharia woyoful woyof gu toll ni nekk ci benn tubéy ak ñaari tubéy. pour tubéy ju ndaw ji laa wax ju ndaw ji. silip. Ah. dagal na lu ci ne. ah kon baax na daa am ñu ñu ñu ko du sol lañ wax. déedéet loolu loolu loolu aada aada yi arabiya yi ñoo daan def. Hmm. bu ñuy dugg ci jàkka wala yooyu. Hmm. ñu ko daan dindi. Ah, ah, ah. ndax ragal li muy takkaloog awra. dara di ci am. kay doy na waar moom kay. waaw léegi léegi ñoom sax boo xoolee même caay yi. Hmm. dañ koy dindi. jërëjëf. waaw dañ koy dindi loolu la waaye amul fenn ci alquran wala xadis bu yenente bi indi wala dara. jërëjëf yooyu moo amul. kon ba àjjuma incha allah daaw de ay fanweeri tubay lan daan sol. ba àjjuma incha allah Cheikh Mame Khadim. waaw ba àjjuma incha allah. waaye waxtaan wi amoon na fu mu waroon a gën a xóotee trop trop trop waaye nag lu neex du doy. incha allah gaa yi dinañu ko jéggal incha allah. waaw incha allah jërëjëf jërëjëf jazaakumullah jërëjëf Cheikh Maam Khadim jërëjëf soñ bu job ci xarala gi waaye jërëjëf bitigu solution bi nga xamante ni moo ñu gunge ñu ngi koy jëfal di ko ñaanal mébét bi mu am si am réewam waaye mébét bi mu am si Afrique mébét bi mu am si doomu aadama yi yàlla na ko yàlla kartanal ba mu àggale ko jërë ngeen jëf ba suba incha allah.